bi ma santee sama borom subhanahu wa moom mi nga xam ne moo wax ci téere mu tedd bi tagg ci yonente mu tedd bi naka yow de yaa gën a kawe jikko yaa gën a màgg di jikko walla yaa gën a màgg diine te jikko ju rafet waral waral ko maa ngi seere ne amul benn buur bun boyeyoo jaamu jaamu ga di njariñ ñàkk gaa jaamu di lor ku dul suñ borom subhanahu wa taala mi nga xam ne amul kenn ko ku mbokkaale nguuram gi koo xam ne mënu ci woor a ñàkk nguur gépp mook doxul mulk sant ak nguur gépp moom la ñeel te lootul ci dara am kàttan ci lépp maa ngi seere ne Muhammad de suñu sang la mooy ab jaam la te moo ko yónni ci ñun ku xub ab ab bëggee waa kon la ab xuppe waa kon la mooy làmp bi nga xam ne moo leeral jamono ji lëndëm ci mooy sangum njëkk ñi ak ñu mujj ñi yàlla suñu borom da ko yónne ci ñun ngir mu nekk yërmande ci mboolem mbindeef yëpp kon xéwal googu ma koy ñaanal te julli ci moom maa ngi koy ñaanal ay ñoñam di ko ñaanal saxaabaam ñëpp di ko ñaanal mboolem ku ko topp ba bis penc jaamu yàlla yu baax yi ñu xam ne ku tedd ci sangu mbindeef yépp dafa dajale mboolem matuk jëmm ak matuk jikko dafa naqare sax misaal ca mat ga ak rafetal ko soo ko doon melal di nga lott ci melal ko soo ko doon wax wax doo doo mën a wax ba jeexal jikko yi ñu rafet aku matam ba daa waral moo dem saxaaba yi bëgg ko mbëggeel goo xam ne dañoo jeexal ci jihaat ànd ak moom joxe seen bakkan joxe seen alal joxe liñ liñ liñ néewle ak liñ bari le ak liñ seerle ak ak liñ manqué lépp dafa ko ci yoonu yàlla ngir dim dimbali ko ci li koy suñu borom subhanahu wa sant moom saxaaba yi jàppale ko te loolu jikko ji rafet moo ko waral mbokk yi ku tedd ki sangu mbindéef yi dajale na mboolem jikko yi yu rafet yëpp da koo dajale sunu waxoon ne jikko yu ay jikko yu rafet de ab tool la benn tool bii moo ko dajale ñu ne yonent bi sallallahu alayhi tool boobu ci jikko ju rafet mbokk yi moo tax mu daan ne suñ borom subhaanahu wa taala yónni ngir moom ngir ma mot ngir ma mottali ay jikko yu rafet mbokk yi jikko yu rafet am na solo lool saxaaba bii ñu wax abi hurayra yàlla na ko yàlla dolli gërëm nee na yonte bi sallallahu alayhi wasallam moo ne sama kem ak kemo bu yonente yi ma jiitu woon mi ngi mel ni koo xam ne dafa tabax këram ba mu rafet la ca war lépp rafet ca waaye am na lu des loo xam ne moo tey kër gi noppi mootee kër gi jag mën naa nekk keno mën naa nekk birig mën naa nekk lu mu mën ni doon yoonu sa ku ba ku tedd ki ku sell ki daan ne man mii nag may may birig boobee dañ ma fay teg rek kër gépp jag kooku mooy ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu daan ne man maay kooku te may mot li mboolem maay maa maa tëj mboolem yonte yi te jim ko tëj nag da koo tëye ci jikko tëje ko ci lépp ku ko roy doo juum ku roy ci ay jikkoom rawe ko say keno rawe ko say kem laxad kaana lakum laxad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana moo tax suñ borom subhanahu wa taala daal di wax daal koy tagg ci jikko ne ko wa innaka la ala xuluqin azim moo tax diine lépp jikko la fa jaala diinu kulluhu xuluqa ku am jikko ju rafet am nga am nga diine jëpp ku ñàkk jikko ju rafet ñàkk nga diine lépp mbokk yu baax yi mbokk yu tedd yi ki gën a mat ci yéen ak gëm yàlla ki gën a mat ci yéen ak gëm yàlla mooy ki gën a rafet ci yéen jikko ki gën a mat ci yéen ak gëm ki gën a rafet ci yéen jikko mbokk yi rafet jikko ku tedd ki ku sell ki moo ko dénkaane woon ay saxaabaam dénk ko xeetam yépp ci ginnaaw ne nañ ko topp te nañ koy def am na saxaaba bu baax ñu koy wax abi dhar yàlla ko yàlla doolee gërëm nee na yonte bi dana ko nanga nga ragal yàlla foo mën di nekk soo boo jumee ba def lu ñaaw na nga ko defee lu rafet ndax rafet rafet googee dana ko far te nga ànd ak nit ñi ci jikko ju rafet te nga àndee ak nit ñi ci jikko ju rafet mbokk yi jikko ji rafet daa bokk ci màndarga yi ragal yàlla mbokk yi ragal yàlla du mën mukk ndaka da ndaka da am jikko ju rafet ku amul jikko ju rafet ragaloo yàlla bala ngaa ragal yàlla sa jikko dee rafet mbokk yi ñu mel ni man ak ñeneen dañoo njort ne ragal yàlla mooy li la yàlla diggal nga defe ko ni mu la ko digalee ci xaqam te doo faale doomu aadama yi doo sàmmanto ñoom seen xaq loo du ragal yàlla loolu jikko rafet ragal yàlla dëgg mooy li war li war sa digg sa borom mooy jaamu ko da koy matale sëkk waaye nag li war sa digg ak mbindeef yi da nga koy matale sëkk ci ga rafetal ci la ca war ci jikko ju rafet nga di ko def mbokk yi ku tedd ki yàlla na ko yàlla doole xew doole ay xewal ci kawam nee na jikko ju rafet mooy tegtalu matu gëmub nit ki jikko rafet mooy tegtale gëmub nit ki moo koy tegtale kii ak gëmam mat na mbokk yi nit ki saasu jaam bi saasu ak imaanam yokkee gëm yàlla bu yokkee rek xamal na jikkoom ji rafet yokk na mbokk yi jaam bi saa su gëmam yàlla yokkee nga xam ne jikkoom ju rafet yokk na mbokk yi jikko ju rafet mbokk yi jikko ju rafet mooy meññetu pas-pas bu dëgër sa digga sa borom mooy meññetu pas-pas bu jaamu yàlla gu rafet sa digga sa borom seen nga diine lépp lépp lépp jikko la moo tax ñu ne diine kulluhu xuluq diine lépp jikko ju rafet la soo ko ñàkkee ñàkk nga lépp soo ko amee am nga lépp mbokk yi nañ góorgóorlu jikko ju rafet moo tax ku sa jikko ku sa jikko dolli ju rafet sa diine yokk bokk na ca nga sellal te na lu baax tey jéggale tey baale mbokk yi yéene yéene sa yéene yi nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom mbokk na ca ak sellu biir moo tax ku tedd ki yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi giñ naa ci giñ naa ci ñoom te maa nga leen waxal waxtaan woo xam ne neen ko jàpp ngeen dégg bu baax waxi ku tedd ki la nee na saraxe du wàññi alalub jaam bi saraxe du wàññi alal képp kon tooñ tooñaay gu tooñaay gu metti nga mën ko te yàlla tax ndara bu yàlla da koo dellu dolli tedd nga kon tooñ ak tooñ ni mettee nga mën koo muñ te yàlla tax ndara bu yàlla suñ borom subhanahu wa da koo dellu tedd nga ab jaam su ubbilee bu boppam buntub laaj ndare di suñ borom subhanahu wa taala da ko ubbil buntum ñàkk allahu akbar allahu akbar mbokk yi bu waxat daane ni ngeen maa nga leen di wax wax joo xam ne neen ko jàpp adduna mu ne ñeenti xeet ñeenti xeet la ci ku tedd ki ay waxam jaam boo xam ne yàlla da ko wërsëgale alal ak xam-xam jaam xam ne yàlla da ko wërsëgale alal ak xam-xam mu rogal yàlla ci alal ja jokk ci ay bokkam dimbali leen ñi ci néew doole la cay xaq yàlla subhanahu wa taala mu génne ko ku tedd ki nee na koku ëlëk bokk na ñi ëpp daraja ëlëk yowul xiyam subhanahu wa taala mbokk yi ab jaam mo xamne yàlla suñ borom subhanahu wa taala da ko wërsëgale xam-xam ta wërsëg wërsegalé ko nak alal waye ko am yéene ci rafet la mu nan ci bu ma sama borom subhanahu wa taala joxoon li mu jox diw dina ko defe ni ko diw du defe koku ku tedd ki neena moo borom borom alal ji ñoo tolloo benn yoon ëllëg yow ma la xiyam mbàkk yéen a ju rafet am na solo yàlla ko yàlla war sëgale ka mooy jaam xam ne yàlla war sëgal na ko alal waaye nag war sëgalu ko xam-xam muy danjatu di tëñëxu àllam joojee jaamu ca jaamu ci yàlla jëkku ci ay bokkam jaamu am jaamu ci yàlla jëkku ci ay bokkam kooku de ku tedd ki nee na bokk na ci ñi gën a ñaaw ay wàccuwaay ëllëg yow xiyam ka ca gën a suufe nag mooy koo xam ne ab jaam xam ne amul alal amul xam-xam yàlla nat nattu ko alal mayu ko xam-xam mu naa ne man de su ma amoon alal ñii kii waay ñi ñu pasar pasare alam noonu noonu laa koy defee kooku de ku tedd ki nee na moog waa ji ñu yom benn bakkaar ñoo ko tolloole kii gën a ñàkk sax amul xam-xam amul alal yii ne ko ba yii ne ko acc jëf ju ñaaw ja yan ci yàlla musal mbokk yàlla yàlla dénk jikko ju rafet jikko ju rafet lu jafe la waaye lu mata lu mata am la képp koo xam ne wex naa ba mel ni gaynde di nga wét ba mel ni gaynde te jikko ju rafet moo ki teggin ñoo ànd ay teggin boo ko amee ñëpp bëgg la soo ko ñàkkee ñëpp bañ la nga ami teggin ak jikko ji rafet ñëpp yëkkati la ñëkk ñépp ñëpp di la tong tongal waaye soo ñàkkee ab yar ak ci teggin ak am jikko ji ñaw ñëpp teggee la ca kaw nag di la cawe yar rek mbokk yi suñ borom mi dimbali yàlla yàlla dimbali ci diineem ji nim ñu ni mu bëgg ñu toppee ko diineem ji yàlla ñu ko toppee noonu يلا يجرب سانة سب دي سنجر كاي بفو اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من قصة الدنيا وعصب الآخرة وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من القرية يلو واسلك بنا نهج رسل وقفنا ذلا واطردنا الجن والشيطان يا الله وكمنا كل ما ننهو ونقصره وهب لنا كل ما نختار يا الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين